waaye di am mbégte ak kontaante bu wér ci Wally Ballago Seck defatina maninam waaye defatina sagoom waaye defatina loo xamante ni si tay képp ku ne Wally loolu nga ko xamee su ma xol bi dafa sedd ba mënuma nelaw ndax ki mu defal teranga su ma ko amoon maa koy def ki mu defal teranga su ma ko amoon man mii maa koy jëf waaye Wally defal na ko ko waaye defal ko de Sénégal yëpp la ko defal waaye géejawaay yëpp la ko defal waaye na xam ni askanu képp koo xam ni si tey yaa ngi ci géew musique Wally defal na la teranga ndax ki mu teral cat sekk la Wally sekk fekk fi muy jouer five oto bii ngeen gis Wally yéeg ci kaw seen bi jël caabi ji jox ko ko jël carte grise bi jox ko ko waaye jël assurance bi jox ko ko ne ko man maa la ko jox bi ko ko Wally joxe sama jëmu xeebu ji ju tekkiwul dara ji la caat jëlaat lépp delloo waat ma ko kon ma bëgg askanu senegal yëpp nañ ñëpp bind ci commentaire yi merci beaucoup Thiat ndax xam nga Thiat Seck li tax ñu war ko jërëjëfal mooy nit la koo xam ne lépp lu ko waay defal fayoo ko borom Thiat Seck artiste la boo xam ne lépp lu ko waay defal wallahi azim lu mu la lebaloon la waaye du ko fay Thiat mën na nitam cat mën na geer ngir nitam waaye cat mën na sonn ngir nitam cat xam na teraanga cat xam na lu baax cat bëgg na lu baax caat lépp lu mu ñàkk ci aar xolam moo ko xañ kon tey waale bu doxee ànd ak mbooloo ñëw soirée cat sekk fekk ko fa caat fekkoon ko baramu euh, fële ca bokk en fait wax ko li mu koy wax donc dama bëgg nga ñëw mercredi sagal si ma waaye ñëw fa ñu foog ci lay yem waali jël oto bii ngeen gis jox ko caat sekk kon waali def na lépp loo xamante ni si war na ko ci caat waaye defal na ko koo xam ni mérito na ko defal na ko koo xam ni jomb ko waaye defal na ko koo xam ni lépp lu mu ñàkk ay nit ak ko xañ kon ñuy sagal ñuy ñaan waali yàlla na la yàlla sagal ni nga sagalee caat sekk sagalee ko musique sénégalais sagalee ko artistes yëpp yàlla na la yàlla sagalee noonu waaye sagal nga koo xamee xam na sag te gor la te nit ku baax la muy caat Seck kon Wally Seck décidé nañ de ñun ñi bëgg caat na nga xam ne loo dugg ña nga ca ba jeex tàkk na nga xam ne loo engage ñi ngi ci ba jeex tàkk ndax ñun bëgguñu ku dul caat Seck lépp lu ko waaye defar am nañu yenn pour defal kooku kon képp kuñ ci jiitu loo dugg ñu dugg ci Wally lebal nga koo xamante ni si walla hazim ak a mën a fay te ragal bor muy Thiat Seck wala merci